salmayin ma'am Yung magana sinip ma'am para Kan salmay ma'am Yung magana sinip ma'am rame Kan salmay ma'am Yung magana sinip ma'am para Kan salmay ma'am Yung magana sinip ma'am rame Bambara bambano Jola kazama Malang tak bisa Lebundai Senegal An sama imam Nyamaga na sinimam Arab An sama imam Nyamaga na sinimam Rame An sama imam Nyamaga na sinimam Arab Hey yo, hey yo, hey Je m'adresse à toi, le trompeur, le voleur, le menteur, des mythos, pseudo sauveur T'as envahi ces vies, détruit mes ancêtres en les faisant tous disparaître sa may ma'am Yung magalasan ni ma'am Arap Han sa may ma'am Yung magalasan ni ma'am Romel Han sa may ma'am Yung magalasan ni ma'am Arap Han sa may ma'am Yung magalasan ni ma'am Bambara, bambana Aujourd'hui, mes chaînes sont mon Afrique, terre de mes ancêtres si chers et bien aimés. Oh, Afrique. Africa, Benelux, Nous n'y a pas beaucoup. bokeh. Africa, Benelin. Nous n'y pas de bokeh. Ansa, my mom. Nyamma gana seni mam Arab मन समय रमे मन समय मम न्यू मगन से निमाम अरब मन समय से निमाम रमे मेर्सी सारा मेर्सी सारा ला ग्रैंड सारा बसुमो बसुमो मरे बसुमो बसुमो मरे Le stress te fait travailler, le stress te fait réfléchir. Mais le stress t'encourage. Là, on est fort. Les patriotes. Je suis content de me moi parce que je me mon je ce me Je me dis je man ña ma me tout appel tout. eh bi pour de gars yi pour de ah les jeunes sont éveillés et ils ont compris qu'ils ont besoin d'un dirigeant humaniste. liste là, j'ai une liste et je relève les noms. le plus ancien du groupe il a 67 ans. Quand il parlait, il pleurait. Prêt à donner sa vie pour que Ousmane Sonko passe pour ce projet. Prêt à donner sa vie pour égorger le système. Alhamdulillahi Rabbi Ces mêmes jeunes, ce même groupe, il y en a qui m'ont trop donné le courage de survivre. Même le courage de revenir au Sénégal. Même si on me tue, je serai que je serai mort en martyr. Mais on va accomplir quelque chose de noble, c'est-à-dire on veut un nouveau monde, le nouveau monde. Nous sommes dans un nouveau monde qui recherche de nouveaux dirigeants. Je vous ai dit hier que nous sommes dans une mutation où c'est l'homme en personne qui est en train de changer. Parce que c'est l'exactitude. Le problème de leadership. avant d'entrer en jeu paramètre bu ou lay qui dit université doit dire d'abord crèche crèche préscolaire primaire secondaire lycée lycée l'imam moom depuis début d'année les classes de seconde n'existent pas et puis nous sommes en veille des Coupes d'Afrique, veille des élections. Les classes de seconde n'existent pas. C'est pour ça que je ne parle pas de l'université. Jamais de la vie. Toujours je suis sur l'éducation de base, l'éducation sous-sol, éducation générale. J'ai honte de ça. Même si je suis mais ndax iqra bismi rabbika la leen yalla wax gis nga tay bu ñu Macky Sall bu jàngoon touti limuy def du ko sañ def ndax tegu ko ci code ci doole la ko tek ngeen jóg ci justice ñu ne leen on a besoin d'un leadership et on n'a pas de leadership parce que on a que des leaders qui chopent des leaders qui volent on a plus de leadership on n'a plus de leadership. Et le leadership, là, c'est depuis la base. L'homme ne peut pas se parfaire à partir de l'université. Non, on ne peut pas parfaire quelqu'un qui doit diriger un pays à partir de l'université. Négatif. Et j'ai parcouru. Me documenter surtout nos candidats. Et on a compris qu'en Afrique même, tout le monde a compris. Nous sommes dans un tournoi décisif les Sénégalais, si on ne rentre pas dans, ce, dans cette nouvelle histoire-là, que le Mali vient de réussir Burkina et Niger, Sénégal, nous sommes fichus. Je vous ai dit, c'est d'ici 100 ans, comme l'a dit Moussa Diakhaté, on risque gros. Ce que nous sommes au bout d'une route, justement, dans une impasse face à un mur ce que nous devons faire. actuellement, nous sommes face à cette impasse-là. Et l'impasse-là, c'est qui C'est le système qui ne peut plus avancer, qui ne peut plus reculer. Maintenant, qu'allons-nous faire pour détruire ce système, à part combattre quoi Ce qu'a fait le Mali, on ne l'a pas vu. Burkina, Niger, Guinée, Mais ils ne sont pas plus révolutionnaires que nous. Ils ne sont pas plus instruits que nous. Pourquoi il y a un seul leadership qui est capable rester debout, affronter les Blancs, affronter les multinationales, affronter le système en entier. Le système occidental veut dire que c'est le malship, quoi. Sonko, c'est pas un leadership pour le système, mais c'est le malship. Or, Maki, c'est le mal du Sénégal. Insulter Sonko, c'est pas nous insulter. Sonko, Ken Sago Sonko kenn saagu ko yéen ñi ko votaloon mu jël deuxième yéen ñi ko votal législatif yéen ñi ko votal municipal yéen lañ saaga seen dayan ah oui Sonko kenn saaga ko de ce manque de respect là c'est notoire te Macky Sall jotewul ak Sonko de waxoon naa leen ko la jeunesse Macky dina xeex ak ñun day teg carotte xeex daa bëri façon xam nga ñun buñ ne xeex rek ñu ne xeex xex da bari manière carotte la ak yak amna sa dom bo xam dang koy neexal pour mu dégg la nga teggal ko lamb organiser ko ay concert financer artiste ñu yëngatu mais amna sa benen dom bo xam comme genre dom di mel man fokk nga toj la bonam ñu suñu kër lolu doon règlement bi sama frère yi fokk nga ko ak ñom pour dalal leen mais man fokk ma foog nga ak man pour dalal ma parce que c'est ma nature lo ma wax man la foko tek imagino juddu si kër ñu lay dundal ku la wax nga ne ko foo ko nga jox ma explication foko tek, te yow taaka 15 ans 16 ans bo amee bàyyi am fulla la la lay def il te fout d'or, te dégage tu vas aller prendre tes responsabilités comme y'a bëgg xamal sa bopp fofu la bëgg jeunesse bi si vous n'êtes pas critique vous n'allez jamais vous éveiller si vous n'êtes pas ouverte d'esprit vous n'allez jamais vous éveiller Macky Sall da leen yóbboo si manque de leadership am tax na ba léegi Sénégal nekk ñaari Sénégal man la yow la mooy Sénégal man la ak yow mooy Sénégal de nay leer de man ak yow ñooy Sénégal léegi ñu ñëpp dootuñu Sénégal parce que nekkatuñ ci animosité mais ci ennemi politique lañ nekk nii fa la ñu Macky Sall yóbbu su dëgg rek a neex yàlla su ma ne sañu kan ma jakarlo Macky Sall ni Ray Ndayem wala Marème Faye Sall waxuma deug kon man sum len actuellement je déteste Macky je le hais sincèrement Ray Ndayem moy solution bi fofu tam mom bu len top li may wax non bi len top man sama gëm-gëm top len li may wax moy lan waruñu nekk ci affaire ennemi politique mais adversité lañu nekk loolu doon politique bu ñëk mais man dañ ma man dama am problème crypto personnel bu ma régler ak Ennemis ennemi politique Sénégal surtout le danger vient quand le 25 au bout d'une route le passage à une autre devient une nécessité vitale vous retournez à droite vous retournez à gauche quoi qu'il en soit vous changez de direction quoi qu'il en soit Nous, nous bi ñuy ni par force et ça sera de force ou de gré duñu xaar ba élection ñu tej Dakar ceinture Ziguinchor commencé nañ ceinture Ziguinchor di maltraiter population bi wel di len de ci bir village ceinture Dakar ceinture le système va continuer vous allez l'accepter par force Nous sommes fi train di xex deux jours trois jours armée de réew mi ñu naan la gauche droite tëj ñu réew pour réconciliation nationale am nañu nangu ba pare yéen ngeen voté na ngeen fexe ba Sénat bi toog am fitu deuxième tour la ñu jëm na ngeen am pression bu ngeen di tegal nguur gi boo xam ne du sañ sàcc Macky coupé fi seen internet ay fan maa ngi wax rek le 25 février si leen avez internet ma ñàkk sama vous allez regretter le fait d'aller en élection vous allez le regretter moo tax ma ne leen financement yi ñun li ñuy wut pour combat bi un mooy yeey ñii <coughs> patriote yaa ngi ni xeex rek di xeexee noos di xeexee bakken te xeex bii du xeexu bakken xeex bii dafa ànd ak siiru parce que xeexu égrégore la si Sonko la ñuy yem ci Sonko la ñuy yem ba ku ñuy fal day taxaw ñu ne ko Sonko mu ne waaw kon est ce ngeen lu ma ci Sonko la ñuy yem ba ki ñuy fal day taxaw ñu ne ko sënkoo mu ne waaw kon ci Sonko la ñuy yem wal illa élection du fi amee wa illa li journaliste yi yëg walla li avocat yi xam ba tax ñu amaat fitu toog ne leen Sonko mën na bokk ba tey wa illa état jël ay responsabilités sàll Sall freiné bàyyi ñoog suñu réew su boobaa tam foog mu metti pour ñu dëj foog mu metti pour ñu dem ndax réew mi li fi manqué dafa garaaw dafa garaaw Sénégal réew kaa la réew kaa boo nekk kaa rek ça veut dire quelque chose de grave Sénégal du ou résolution Lola comment à comprendre da ngay life, ñu naan la solution mais du ou solution waaw du solution yéen jeunesse bi xam ngeen il vous faut juste une petite équation pour que njàqare coono bi ngeen que jeex mais tey dama waxtaan ak benn kilifa xam nga tey moom daf ma delloo fi ñàkk fayda mu ne ma yéen boy da ngeen sopp loolu ñu ñëwee naan solution mu ne ko waaye ban solution eh, mu ne ma eh bu moo bind livre solution ma ne ko waaw mu ma est nga livre bi ma ne ko non pas tellement mu ne ma livre boobu xoola moo tax tubaab même 2029 Sonko du nekk président nee a ma gis nga boo leen seetaanee lii pourtant ci nguur gi la bokk mu ne ma boo leen seetaanee lii ba dossier terroriste yeeg dossier yoyep la justice va suivre son cours parce que état bi fi togat duñu ñu nangu ñu ñëw ba fukkee texte comme ni Macky Sall def c'est très logique ci lolu état de droit dina amat ci Sénégal de les pouvoirs séparés exécutif législatif bi foog ñu séparer pouvoir yi de nay leer de xalat len bu baax ni mën nañu sacrifier gis nga mo may pour lu ndaw ñu sacrifier Ousmane Sonko. Hmm. waaw waaye lu ndaw ñu sacrifier Ousmane Sonko. Laurent Gbagbo taxaw na fi ne mooy président mu jiwul fenn jiite na dix ans doog a organiser élection xam naa lu may wax Niger waa Niger ñoo gën a déterminé waa Sénégal ñaata moor ñoo am pour ñu samp Bazoum aywa. yéen xam ngeen ne waa Niger ñoo ñu gën a déterminé ndax ñoom waaw ñoo ñu gën a déterminé dëgg rek a neex yàlla ndax ñoom génn nañ défendre cam génn nañ peuple bi yëpp mag ak ndaw bay togg ci mbedd bi buntu baas française yi jël wala bu leen français yi dooroon ay missile dara ñoom bi leen ISEM bëggaloo jàllaloo Bazoum Bazoum jàll na wala jàllul si live ne woon naa leen Sénégal mën na nekk Niger de moytu leen Macky Sall ñëw fi ñu ne 4P ma ne leen gars yi 52 pour cent yi nañ leen dóor nday waa ji bal mu dee moo gën ñu yegg ak moom foofu sinon damay ragal le 25 février Singon... degré de violence bi dina toll foo y aura beaucoup de gravissime boo leen yeggee ak Macky le 25 février policiers et gendarme ak loo leen jekku rey leen ndeyam ndax ñoom bu ñu leen jekkoo daañu rey c'est simple comme bonjour ndax doo pas les résultat yi muy joxe te pour bañ li muy joxe di par force di ngeen xeex téléphone yu ndaw yi nag waxuma téléphone yi di jël internet de élection yi bu leen yaakaar ci internet pour am li ngeen soxla kooku moom mettre la à côté sénéra ñoom ñu ngi leen di dóor affaire yoo xam ne di ngeen ko yëg tôt ou tard parce que sénéra dina ñëw bloqué télé yi bëri borom résultat en yi c'est comme tëj nañ fi ay chaîne ngeen gis ko bu ñu tëjee chaîne yi tëj internet bi déjà kon saa waay Alassane Ouattara def na ko réussir ko te ivarion yi guerre nañu xam nañu luy guerre yéen xamagu leen guerre Doumbouya def na ko réussir na ko Guinéen yee ñu gën a ñeme joxe bakkan opposant yi nag naan leen bu leen xeex lii seen yoon nekku ci gis nga opposant yooyu le 25 février wala le 20 janvier bu ñu leen ne xeex leen bañ leen am na opposant yoo xam ne Sénégal yem sax xam ngeen fi may waxee am na ñoo xam ne même bu ëllëg dexee àdduna ñu ànd ak Sonko bu ñu leen xeexloowee bañ leen ku ci mel na xalifa Sall kon maa ngi yëg ne mu ngi jéem a seeti Sonko maa ngi yëg ne mu ngi jéem a seeti Ousmane Sonko prison ba ñu continuer tuuti ci leadership bi parce que le leadership des fois et français nous avons tous fait l'expérience de ce saut quantique nous avons tous fait l'expérience de ce saut quantique et de cette nécessité vitale une fois dans notre vie souvenez-vous vous étiez un futur né Quand xam changement renouvellement yow bi nga nekké xalé xam nga né yag yag di nga wat yow yow mi dima sétan xamone nga né yag yag di nga wat yow xamone nga ne da ngay wat lan motax ñi bëgg changer Sénégal du renaissance ñan ñokay changer est-ce ñi am 01 la wala 18 ans yeen ñi voter 18 ans yeen ay jëm ci renaissance xamone nga ni di nga wat bës bi nga takkee jabar ñu noqaloo ci biti nga dem loué sa appartement bopp yore ko yow kese ne gees gi gisoo ndey gisoo bàyyi xamoon nga ne di ngeen judduwaat waaw jour bi nga amee doom xamoon nga ne di nga judduwaat ndax à chaque étape sa vie day changé ñenn ñi soxor yi nag dañ lay xam daaw ak daaw jëg ni kii nii la mel ba tey moo tax dumu dugg ci ay débat bani niveau da ngay judduwaat Macky Sall bu démé ni day judduwaat judd bu bees tak ndax xam nga lan président la joggé wacc di fi génné comme xaj dugg mo gën rafet génn comme xaj la nar ñibé day judduwaat nu xaj ñibbi ñibbi bo xamni ñi la bañ ñoo ëpp ñi la bëgg sa dé day gudd da ngay gudd fan mo dar comme power Ousmane Sonko bu dugg sé day judduwaat parce que poste bu mu mosul occupé le présidence du mairie buñ ko ko néré bañal nak ñi ngi wax dé le pays sera au chaos sëñ bamba pour lan mu sampu limu wax wax yëpp seerafal da ko jëfé sonko ci live bi la boy nan sonko yow lañuy top laal né am nga problème sénégalais bu xamul fu mu jëm day delluwaat yow la ñuy roy bu la ko booy waxoon bii heure gëm naa ne coow li xoola Franco laa ne jeex na mais Sonko si yow la booy commencé wax yow la ñuy topp ak akbar biñ la ne yow la ñuy topp laal ne saa waay xamal fu nga yem saa boo waxee ma génnee critique ne erreur parce que xam nga tam foog ma andil leen kilifa nu ñu koy gérer ci réew gis nga Kër Masaar ak yooyu yen da ngeen daan seetaan ful bi fay nek seetaan réussite manifestation bi ñun moment bobu dañu nek plus de 250 personnes branchées di déglu xam nga loy déglu foot ya waxuma len foot fët grammaire waxuma len fët orthographe fët ya mais fët dans chaque discours y a des fautes saa bu laalee CFA bu laalee monnaie ma ne leen noo baaxul parce que mu ngi ci livre am bu laalee fii man leen non baaxul dafa teel xëy na lii non bu laalee fii man leen baaxul dafa teel est que le peuple est prêt est-ce que si laa duggee na leen yeewi léegi nañ leen yee booy doog a leen yeewi parce que ko niveau bu mu nekk ni vitesse yu muy daw foog ñu yee booy yi pour yeewi leen parce que koo yeewu koo yeewi ay xoolal booy yi ñu ngi wutiwaat pour yeewu pour më a attaquer ñu yeewoon booy yi na leen métti métti élection moy gagné ay carte moy gagné kon bi heure ngeen fakk luñu def 2021 nañ ko def dedet wante bobu boy dañ leen yeewee ci Macky Sall doole la leen jaay jaay leen ko doole ñun loolu lañ doon wax xale doole la Macky di jaay ñu ne waaw ñu ne leen nañ leen ko jaay doole parce que ñom Khalifa Sall doole lañ leen jaay sacrifier leen Karim Wade doole lañ ko jaay sacrifier ko mais leer de Macky doole la jaay mo taxul ñun tam ñu jaay ko doole mais ci jaayante doole bi nit ñoo dem ba ci biir. xaw a laal frein c'est normal ndax li ñuy xeexal pour lan mën leen woon du ma live si vie privée ñu ñi di live fekk ñëpp gars yi def nañu foofu ay erreur parce que xam nga lan dañu sénégaliser woon combat bi fàttali ne Ousmane Sonko ñi mu jotel xajuñu ci Macky Sall xajuñu ci moom. buñ ko ne defal day def saga Macron li nane defal mu def asuma la Macky biñ nekkee ci vie c'est bien beau nag yàqante tojante bi mais ñooñu ñu le ñooñu duñu leen fal malgré que ci biir système bi la dundé mais xoolal à quoi ça a servi aujourd'hui ñom ñi ngi dox seen soxla Marième Faye Sall mu ngi fecc ay fecc à quoi ça a servi falaa leen ne woon combat bi xoolal nañ ko teg ci éveil nañ jàngal xale yi nañ leen jàngal rek buñ tàyyi ci jàngale bi parce que bu ñu yeewoo fii Macky du leen téye mais dañuy personnaliser woon combat bi ba mu ëpp personnaliser combat bi dëgg rek neex yàlla man dama ñëw rek teg ko code ne leen Casamance ku wax Casamance ma tàgg sa taxaw waaw parce que dañu foogoon ne combat bi Sénégal la yéen ndekete système bi gën na yaatu Sénégal ak Casamance système bi gën na waaye yow système bi liy xeex Sonko rëy ba jaaykatu café Touba yu si bopp koñ gi ci ñuy xeex Sonko la ñu bokk ndax ñoom ñooy boole booy. li ñuy xeexal a yaatu bi ñu foogee ne ki nekk sa koñ ngay xeexal ndax nga sa bopp xeexaloo Bouga Zéli xeexaloo Lat Diop la jóob dañ koy jox comme yow. ni ñu lay corrompre dañuy corrompre la Diop na ko saagal ndey Sonko <laughs> xam naa bu baax lu may wax lii xeex rëy te lii xeex ñoom moom ndakaaru restaurant bu fa baax ñoo ko moom foofu nag la ñoom Akhenaton ak Mollah Morgun wala dellu si ndax te ay dossier ñoom Fares ak ñooñu boobu ñoom ñoo ko maîtriser man moment bi ko ñooñu di wax dam leen ne woon waaye ñii ñu ngi ci biir dëkk bi mënuluñ ñu dara ndekete moment bii nag ñooñu ñoo defar waa ji ba Cerné Plateau ba yokk ko fit ba ñoom ñoo imposer seen candidat ak France pas Macky ñoom ñoo ñu nekk Sénégal mooy juif yooyu gars yi daan tojal fii juif yooyu bokk ci jënd arme yi ay ñoom ilimaan ak laam ak xaw ma naka laam ñoom ñëpp ndekete ñu ngi ci deal bi ñoom ñoo takk seen fit jël seen ko tëj ko Macky encaissé comment ay nit ñu wéx mën nek ci dëkk bi non man dal ñom mo la gaay di ku xam seen affaire yi yoni leen li dag leen ko ñom defaat seen live yi si ñoom Fares mooy juif yooyu nekk Sénégal ndekete moment bi ñom ñoo ñu tanc sot andil ñu armada andil ñu fa ay mercenaire lu ne lañu andil tek léegi nak combat bi fay am ku mën japp ci jëndum portable da ko japp ku mën japp ci défar cocktail molotov lu ci waay mu jàpp na ko jàpp teg bu leen sonn Pastef y aura des boucliers humains suñu paa yeeg yi suñu paa yi ak suñu maire yi bu coow li wuree këng ils seront nos boucliers ñoom ñooy jiitu coow li waaw kañ Thierno Bandam c'est que boy gis nga nag dossier bi gis nga nag munuma ci wax jox nañ mako mais jangugum ko parce que ñom mo la ñoko maîtriser sincèrement dossier bi su ma ci waxe rek nelaw parce que tam sama gaay door dóor la méttee gars yi moom boo waxee loo tam ñu ne la grand ni ni ni xam nga rek <laughs> japp leen ci rek na gaay live wala man ngeen yónnee ma live gars par messenger man su ma deglo dossier ñom terno Bandom bi di jar ma koy lire maîtriser wu mako sincèrement maîtriser wu mako moo tax ma leen ni wax moment bii ñun suñu combat fu mu toll muy fokk jëli waa ji gars yi paa yi la ñuy def bouclier ak maire passif yi ak jigéenu passif yi li ñuy génnee jiital leen def leen bouclier humain ñëpp a ngi saaga armée ñëpp a ngi saaga gendarmerie mais jot na nag ñu delloo leen seen dignité gis nga nit am na fooy toll ci combat boo demee ba moom moo fi sës moom rek nga yaakaar galvaniser ko moo gën ñun ñoo leen fayal jàng encore une fois c'est pas Macky Sall qui est l'armée nationale c'est pas les généraux saint-cyriens là bulde hi bés bu réew mi ñaawoon tey te metti metti réew mi day ñaaw Macky du fi jóge jóge bu sedd gars yi Macky du fi jóge jóge bu sedd mënuma dugg si lépp mais Macky mënu fi jóge jóge bu sedd Alassane Ouattara mënul def ñun deux mille vingt quatre Macky Sall tëb na mooy mbaalu tëb na Baro day tëb ñoom ñëpp kenn du def mandat mënul nekk on a besoin de nous unir on a besoin de nous mënul dem dem bu gajaf mënul nekk ndax moom xalaatu ko. Macky du dem dem bu yomb de gars yi maa wax rek Macky du dem dem bu yomb préparer leen fight bi ngir yàlla soyez sur vos gardes heure bu ñu leen ne tàkk na rek na tàkk Macky dina provoquer ba def lu mu warul def li muy wàcc ci Sonko ñaari option lañ ci am ñoom ñaari option lañ technique pour Ousmane Sonko ñaar gars yi ñaari option lañu am ci Sonko booy moment ñu ngi bëgg a rey booy Casamance yi ñu ngi leen <laughs> noq noq yi metti ramas nga ne ma ki dugal Casa mu fay dugg gars yi ñu noq booy ramas ay booy jëju ne nañ ma message yi jàpp nañ ay booy élève dóor leen door yu metti ndax lan sor ay bracelet si loolu la Moussa Fall dem def gisu leen ne Moussa Fall si boppam mu ngi biir zik bunkering la ñu commencé di ratissé noonu dugal fa armée nationale moom é que ratissé civil communautaire lañ nekk nii di def Casamance mais yéen waa Ziguinchor bu ko gën ke kenn gën teeru mais Macky du fi jóge-jóge bu yomb Macky du fi jóge-jóge bu yomb maa bañ maa bañ boy préparez-vous soyez sur vos cartes gars ñoom lu ñu pare pour Ousmane Sonko ak li mu dem defi ci dex ba li ñuy sacrifier yëpp yooyu sunkoo moo ko waroon def bañ ko léegi Macky da koy dem def loolu patriote yi xam nañ fi may waxee amoon na loo xam waroon nañ ko def ma mooy ñoom dugg nañ non booy foog ñu combat xam naa lu may wax nañ leen xeex nañ leen xeex xeex daa bëri façon xeex daa bëri façon gars yi xeex daa bëri façon nañ leen xeex nu ñu waxee lépp fii nañ leen xeex soyez président partout waa jël leen seen bopp pare leen seen bopp ndox robinet ni ngeen kay naanee calcul dee leen ko sóor calculer leen lépp mu toll nii merde Macky mu ngi nii di dugg zik yéen waa zik yee tim na dex bi ba paré ak hélico ça va passer motax nak damay wotam suñu gars yi ñun tooboor tey la won suñu sarax bi sarax loolu bu mag bi ñepp sol nañ lu ñuul ñew mais maké ah damay wawat sama gars zigen Ziguinchor de gentleman ra Diop fokk ñu yëkëti xalé yi duñu wa Dakar parce que waji ni limu sañ ñun sañu ñuko ci galaaj sañu ko gay bu jola demee bay xom. bu me demee bay ñaan ba jël nak def ko ci ndox nak bi ñëwaat nga dugalaat ko nak bi ñëwaat nga dawal gal sànni nak bi mu ñëwaat Macky Sall limu mu sañ sañu ñu réew mi buñ ko déstabiliser wul Macky il va nous déstabiliser à jamais Macky buñ ko tojul dinañu toj à jamais xam nga ñun ñoo bañ déstabiliser réew mi mais ma ñàkk sama ndey Macky dinañu gis kii bu ñu dëggul ndeyam dina rey ñu bëri ndekki accident yeeg yëpp booy moom la kii bu ñu dëggul ndeyam Macky dina leen rey yéen ba ngeen jeex tàkk te lim ko neex moo fi am day jaar Banjul ci Baro ko mandinko mandinko uleba yi wër nañ ko dañ koy wër parce que ñu ngi préparé seen lépp dañ lay wax ay sacrifice di la wax ay sacrifice ba nga ne c'est impossible nguur warul jal yi nit mënu ko jar mais moom si éliminer te kenn du wax jaral na ko ko te kenn du wax da koy jaral même ci baatin day dóor booy bi mu daanu te kenn du wax moo tax nag te booy bi si ñun la yaakaaroon bàyyi leen di ma wax ci waxu politique bi waxu yàlla ak di mystifier affaire bi ñii ay nit ñu xaraam lañu ñu ñooñu gën ñeme yàlla ñun xeex bi dañ ci xaw a ragal yàlla bu mu ëpp dangay wax sax ay ñoom jiw njaay yëkk eh, yàlla baax na déedéet taal du yàlla baax na li ngeen di dajale nii boo leen ko defoon tuuti ci bagage yi ñu contre Macky Sall ñuy dóor ndey mu daanu bii heure booy jóg nañu xeex xam ngeen bu baax fi may waxee

nay téye sa loxo waa ji di def di leen won am opposant yoo xam yëg nañu lépp ba pare maa ngi gis benn vidéo bu may tëjee pour clôturer maître Khoureyssi maître Khoureyssi booy prisonnier yi waa Kaffrine ñoo ma woo ne ma mais grand yow yëgoon nañu ñu ngi saaga Khoureyssi ma ne ko kan mooy saaga Khoureyssi mais moom li loi wax la wax après ma gis vidéo ma gis benn waay dëkk saaga gars yi juum nañ de ah paa boobu de man de bi ñu tàncee sama booy yi comme ni ñu koy waxee booy waa Casamance région bu ñu leen munti tànc ba Fatick Gossas man personnellement dem na fa si loo xam ne yónneewu ko Fissine ba Fissine booloo jeex man personnellement ay prisonnier Casamance nii du sax Clédor laay woo xuree si yorul sama numéro mais man par communication toujours damay am kuma lay codé direct di jaar ci mom may wax ak yow moy dox affaire prisonnier yépp te fumu dem bu xamné dañ lay da fay bàyyi ci boutique du khalis xuree si bi gis keroog mu def vidéo bi muy wax mu ngi lox kon mom moo ñu eh, enerve ndax xam ne lu justice def du yoon gars yi combat bi dafa toll foo xam ne dafa toll foo xam ne hmm, soxlaatul ñu jiñ kenn leen xam lan moo tax xuree si mii yow xuree si ñaata temps la def si affaire bi hmm. gars yi ci leen di jiñante ko xam nga man affaire bi daf ma déplané bi ma gisee ñu koy saaga ñu naan traître la mooy infiltré bi di mu tiit dama ne ah ku lii moo tax ñu bëri daw boo supporté wul saaga bi après da ngay daw fekk moom c'est un grand homme may wax ñeen naan mu dafa delluwaat si kàddoom déedéet ñoom conférence de presse bi ñu def parce que état mënu ma dugg ci lépp état moo wax su suuf parce que état xam na ne Sonko mu ngi ci liste bi mais ndax état va prendre ses responsabilités le 20 bi ñom leer na leen ne nekkul sept sages ñoo d'accord pour éliminer Ousmane Sonko Badio Camara kese mo jël ay responsabilités ndax moko ko engagé ak Macky Sall mom il a pris ses responsabilités encore une fois buñ leen déwul woon waxu xuree si bi la ñuy mais dañ leen dee motax ñu ñeme tok na né eh, eh, candidat Sonko déedéet

ils auront des balles réelles te chargeur xoola ay vingt quatre coups lay def wala douze coups chargeur lu ñu leen ti dóor dóor dóor ay rafal bu leen dóoree benn chargeur balaa moo wàcc beneen chargeur bi ngeen ñëw waay jaw rend ko ba génnee butit ci mbedd bi ñu gis looloo fi nar a xew ville yu nga xam ne Sonko ko moom ça ne sera pas la gendarmerie yenn qui va se charger de la sécurité mais la gendarmerie de Moussa Fall et de Macky Sall et de Marème Faye maanaam Ziguinchor Touba Dakar ñoom Jérôme ñoo koy gérer ak ñoom ñooñu yéen yaa ngi ni toog démb gars yi ñu ngi def seen réunion planning décortiquer lépp teg yaa ngeen si ñooy gagné di rêver bii heure xam nga ci loo leen waroon nekk ay grenade grenade militaire yi fexe leen ba am foo leen koy jëndee. fexé len ba jangal boy nu ñuy décapiter grenade lool la leen gëna gissé fexé len ba jangal xalé kër politiciens yi xaaliss mu ngi fa ay machine xaaliss mu ngi fa fexé len ba jangal xalé yi naka la ñuy def ba jëli ji seen xaaliss biir kër politiciens yi té baye di jël gal fakk ni tubaab bee yore xaaliss ba tey tubaab yoratu ko mu ngi kër far ba Ngom fexé len ba jangal xalé yi policier ak gendarme yi nekk seen koñ tank yaangi ni xex di len baal ñuy dem ñi ñëwaat tir len ay fetal

ou de gré de force ou de gré yéen a féetewoo maslaa léegi Macky mu ngi féetewoo xeex ñun nag heureusement kenn si ñun bokkul Pastef simpi ngeen ñi ci bokk ñu jël seen responsabilité man dama dugg ci débat de bas étage combat bi endurance bu rëy lay laaj ci ne woon naa leen même bu Sonko faloo tant que le 4 avril jotul bu Sonko faloo bu défilé militaire am kañ laa ko wax mën leen même bu Sonko faloo bu défilé militaire amee ñu dóor ko bal ci 4 avril boobu day bàyyi bu Sonko faloo première année bi du def défilé militaire xam naa bu baax lu may wax Sonko xeexul ak Macky Sall Macky Sall pion la ci ñu muy xeexal les jeunes kan booy seen nday laay def eh problème mu huit cent mille francs xam nga lu muy suul nii ay xale yi jigéen xale bu jigéen lay suul nii yéen Dakar si tuuru yonent 63 nag ci tuuru yonent ci at yonent boog 63 nag xam nga Sonko fi nekk di jullee ko woor léegi nag ci égrégore arab lañ ko mujjee jàpp Inde xool nañ Sonko jàpp ko malgache Mekremes Érythrée dëkk bu nekk dem nañ fa jàppuñu ko ab égyptien mujjee jàpp waa ji te ci ay chiffres la ko jàppee man ay chiffre 63 sax xawma won woon ne am na importance te man chiffre de la ndekete moy chiffre bi len dernier bi ndela la maajoor bul wax ndela bu takkee fitam ñu teg ko procès public mu wax lu kenn mënta dégg mu wax lo xam di ngeen xeeb sëriñ yu bëri yàlla nañ yàlla di jéggal bu waxee

Tu Sonko bokkutul ci programme 2029 beaucoup tout même programme 2029 te ñun ñu ngi Sonko 2024. kon ñu ñu ay plan B day Sonko jël élection bi Sonko parce que ton dorable c'est justifiable waaw waaw. xam nga bu plan B ah c'est une grande ville. su boobaa lu Macky sàcc sàcc sàcc sàcc sàcc Amadou Ba deuxième tour lay dem de nay leer bu doon Abass di dina ne waaw moo ngi dakaar moo gañe mook Bart Abass Fall mun nga layool deuxième touram mais Bassirou kenn mënu ko layool buñ ko sàccee ndax gañewul goxam xam naa fi may waxee waay gars yi waxuma waxi politique logique lay wax ay wa waa léegi diw baax na ñu ne gañewul ci ay mbokkam ay mbokkam ne gañewul fi ñun wale ko gagnaw ci ay mbokam ñu bëgg ko jël jox ko Sénégal ngeen bëgg yeen gaay yi duñ ci profité lëbët carte gi taxasse élection bi c'est que da ngeen ni wax ak ay xalé wala da ngeen ni saw di jaaxaan quoi yeen c'est que na ngeen saw di jaaxaan kenn rek laa leen ñaan mi mi Touré bay leen ko mu dem li ngeen bëgg def ni ça ne passera pas Anta Babacar elle n'est pas aussi capable que ñun pour ngeen bloquer mi mi di bay Badio Père Cheikh Tidiane yow julit nga bàyyil mi dem

politiciens yi ñoy gën xëppaat leen ndox bu sedd xam nga lan mo tax ñu leen xëppaat ndox bu sedd boy dajale leen seen moyen de combat li lay wuro a suuli defar leen seen masque defar leen seen lepp boy di ngeen xex <laughs> ma ñàkk sama ndey di ngeen xex le 20 sax bu affaire génnee bu le premier fait gis nga campagne gi bu naree jaxasoo coppet la ñuy def Sonko nok ko Kédougou bu ciow li bëree nak ha ah, ñu defal ko bagage ciow li jeex mu dem gis nga maké il est prêt à enterrer ce gars mais il est prêt à l'enterrer confession de foi def il est prêt à l'enterrer confession de foi la def il est prêt à l'enterrer C'est pour l'enterrer da koy jaral ne 18 heures puis ñu ne 10 mois. mo gagné pam ñu ne Sonko a été éliminé C'est le bi programme kese xeex bi nous avons ba Sonko génn ba le 25 février Issem bi day gagné bu ñep si talé bi bu deux heures de temps ma ci Cheikh Ahmadou Bamba ma ma xati bu Sonko le 25 février man de sincèrement kon kenn du fi campagne Sonko xamna bu baax fi mu doon campagne le pays sera au chaos parce que mom xamné né pour ñu élection

52 jarul ñuy dem deuxième tour xam nga lan motax duñ dem deuxième tour parce que xoola paaka baa ngi fii tegu bu Sonko yëngoo ñu rendi ko gaay dañu waxtaan demu seen biir de mu ngi teggi pexe rek naan dañuy koj Macky momit mu ngi mu ngi ay tegkatu pexeem te ñom ak minorité extrême lañ ñu nekk ab mbolo ragal leen ba moment ni mënu luñ Sonko dara fi ba le 25 février mënu luñ ko dara mais le 25 février bu xasse tàkk mënal nañ ko dara je vous avertis nag par force dem génne par force wala ñepp ñak ñu reprendre à zéro rek la gis te bëss buñu ñu laalee waa ji ñeneen ñi borom takku der yi ngeen di saaga ñoom ils vont prendre leur responsabilité d'une autre manière et su boobaa tout le monde va subir en même temps te yàlla nañ ci def sax 20 ans ndax mu tane